ngeen di def ay ennemi du loolu fi ne Mbàkke tey ñun bu ñu demee assemblée wax bay naaw ba juróom-ñaari asamaan ñu may ñu hôpital fan lañ koy def anu suuf su des Mbàkke anu suuf fi ne anu suuf su des Mbàkke bon nag nañ leen seetaat suñu bopp man nag jigéen ñi laay wax ak ak xale yi dama ne cëmbax cëmbax ji bari na ku ñëw bu leen joxee un million lekk leen ko waaye ka di jox seen carte na ngeen ko seet seetantal ko man boobu conseil laa leen di jox bon El du ndox mi ñëw naa ci ba indi fi un ingénieur de la SONES nommé Saliou Ngom nommé Saliou Ngom ñu def tuuru teen ci Mbàkke ma ne leen monsieur le ministre bët du yenu mais xam na lu bopp attan te ñun dañoo bëgg ñun jigéen ñi Mbàkke képp ku ci soxlaati feeñ ci sa lafu sër wala làmb sa nafa faj sa soxla teg doo diis kenn soxla dañoo bëgg a gis suñu bopp ci mbayum noor bi ñu ñëw ma ànd ak ñoom wër teen yi Mbàkke yi ma xam ñu duy ca teen ya ndox yóbbu ko pour def analyse yi pour defaraatal ma teen yi jël pompe solaire def ci ñu am ndox mu neex koñ bu ne ñu mun faa dem jigéen ña fa nekk ñu formé leen ngeen di def mbayum noor loolu def naa ko te dinaa ko topp bu député gi jeexee dinaa ko topp bu soobee yàlla balay jeexit dinaa ko topp bon nag ci élection yi lañ jëm maa ngi ànd ak le directeur Gallo Ba coalition Benno Bokk Yaakaar avec la coalition loolu leer na nañ bés ni ci tey loolu def naa ko ci Mbacké waaw loolu daal laa amoon ci gàttal li ma leen di wax carte wi jox leen ko xale bi nga xam ne mais yow nit boo toogee ci euh, fauteuil nangami at nit ba fin mandat bay jeex nga ne kat mos naa benn yoon mu neex dootuma ko bàyyi négal ma def politique gu ginaar këppatal ndox ak pepp ndax tey boo buggee jàpp ci ngunu li sax dangay jël gin pepp suy bu ginaar yëpp dawee ñëw nga ne ceex ya nga soxla dàqaat ñu dem lool dong la ñuy doyee ñun jigéen ñi jigéen ñi rek laay waxal de ñaanta ay goudron El Modou tronçon maanaam bii jóge héliport dem ba ci route nationale bee ndax pencum sëñ Ibra mii muy def màggalam bi at mu jot bu waa kër Serigne Touba yi ñëwee di ngiro fii ñaanal naa ko sëñ Dame Atta ñaan naa tronçon euh, euh, jàkkay Tidiane jumaay Tidiane ji ba biir Daaru Rahman ñaan naa ko beneen bi ci topp mooy talib sëñ Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm bu daaru salaam loolu ñaan ko ba ñu tegoon ko ci taabalu ministre boobu Omar yu moo fa ne maa ngi koy wax nii mais malheureusement moom it ñu dindi ko indi keneen te kii ñu indi dina ci taxaw muy la ministre Mansour Faye incha bi àllaaw bon sama bilan bii laa bëggoon a wax ma Mbàkke wax leen li xew sama diggante ak waa parti démocratique sénégalais xam leen liggéeyal askan Mbàkke moo tax ñu ne dañ may jéem a tourner le ñoom buñ nax seen bopp buñ nax seen bopp PDS amatul de karimiste fi des amatul amatul campagne jotagul dama doon def démonstration de force ak wax sama bilan mais yow xam nga ne bu wax jotee dinaa wax dinaa ànd ak sama doom uuf ko wax ba naaw maa ngi wax dëgg yàlla maa ngi nuyu monsieur le maire sama doom la sama xarit la moom sax laa defe woon ne mooy ñëw tendre ma la main moom laa defe woon ne mooy ñëw tendre ma la ndax nag sama borom kër bu tedd bi ci kër gi waa Daar Rahman rek la yaakaar Daar rek la yaakaar waaye nag wax dëgg yàlla eh waa Mbacke case des tout-petits bii fàtte naa ko maa ko fi indi fii maa ko fi indi pare ko ba teg ko fi tey dama amagut seen jot rek waaye ni ñu def école bi neexuma ñoom dinaa ñëw ci ñoom dundukaay lañu ñu def école bii école bii lekkukaay la ko def ñi yor seen doom yi ñu nekk fii dama ne ñi fi ne duñu dara ay sàcc lañu xaalis bi xale yi fay yépp mu ngi ci seen biir man naa wax lii loolu dinaa ci ñëw jotagul dinaa ci ñëw muy école bii di case des tout petits bii dinaa ci ñëw wax leen ruq yeeg ruqaat yeeg secret ci biir et tout mairie bi waxoon naa ko ne ko bu dee benn nit sax na ma ko mairie bi jël dimbalee ma ko ba ñu laaj ma këyit ba ma yóbbu ko fa wax dëgg yàlla ba tey oma ci satisfaction te man it wax dëgg yàlla sonaluma leen ci leen monsieur le maire nag mooy seule personne bi nga xam ne aussi moo mos di séddale dara muy ceeb mu yëkkati ci 60 sacs de riz yu ndaw jox ko nee na bàjjenu gox yi te lu ma nit defal man dinaa ko wax mais à part leneen wax dëgg yàlla man léegi de gis naa muy def ndax fekk naa ko hôpital mu ne mu ngi def bloc opératoire. ak euh, appareil ko am nañ ci ñaar waaw mais nee na mu ngi def bloc opératoire defe naa commencé nañ ko ak euh, fait conseil départemental de la jeunesse defe naa toj na communal nee na defar na ko def na ko ay saal ba bëgg ku def dara def ci ak yooyu loolu laa ca gis waaw